proposition de loi ayant euh, des incidences financières euh, loolu di ay kàddu yoo xam ne ñu ngi ko député Guy Marius Sagna xam naa daañu ci dellusiwaat ak moom incha rabbi euh, Mansan mu mel ko tàmbali na peur que tey jii seen session bi dana jël temps parce que bu fekkente ne député Yewwi fi ñuy ngoy foofu la ñuy ngoy dana compliqué loolu parce que bu fekkente ne dañuy bëgg député bu joxe benn question préalable kon mooy tey jii gaa yi ñu fanaan absolument il parce que jàpp nañ ne tey jii euh, c'est c'est c'est c'est l'avenir du Sénégal c'est la démocratie tey jii lii xew assemblée nationale tey euh, dama jàpp ne président Macky a franchi la ligne rouge tey jii dina euh, sur quelle base politique la ñu mën a basé pour mën a repousser ay élection parlementaires yi député yi sànq yaa ngi koy wax ma ne la est-ce que c'est du peuple boo fàttali ko moom Abdou Aziz baax Euh, daanu na wax benn message bu am solo député yi boo leen di voté loi assemblée nationale xool leen ba xam ndax voix boobu loi boobu ngeen di loi boobu est-ce que peuple am na intérêt waaw est-ce que c'est les députés du peuple ou bien les députés de Bokk Yaakaar encore une fois de Macky Sall xam nga mbir moom la ko war a njëkk say saytu mhm. mbir mi euh, dafa am loo xamante ne c'est une c'est des problèmes de souveraineté mhm. bu ñu koy indee assemblée nationale teg ko ci taabal bi yow député bi da nga war a jël sa parti politique tege nële jël tey ji foo bokk ak euh, loo gëm ak yëpp nga teg ko nële mais jël la peuple sénégalais teg peuple sénégalais tey jii lañu ñu tooñ encore une fois tooñu ñu euh, Ousmane Sonko tooñu ñu Bassirou Diomaye Faye tooñu ñu les candidats peuple sénégalais bi la ñu tooñ parce que peuple bi ñoom ñoo yor ñoom ñoo am droit dem voter ci élection yi tànn seen jiitu réew te tey mënuñu presque à moins deux mois des élections. presque euh, ay moins deux mois effectivement. moins deux mois des élections. Mm-hmm. président am sañ-sañu taxaw jàkkaarloog peuple sénégalais pour dire que ne élection yi dama koy repousser. di indi ay loi ak yoo xamante ne je pense que ne teguwul fenn. c'est une mascarade il faut oser le dire. mascarade la poursuite ah c'est du poursuite quand même. <laughs> Euh, poursuite propos masse ah. non euh, ñu ñëwaat ñu ñëwaat dem. jëli ji poursuite constitutionnelle. non non il est devenu putschiste maintenant. ah bon quand ah ah parce que njiitu réew président Macky Sall daanaka jeexal na ci réew mi. Ah, li mu def bu ñu ko tuddewul putsch constitutionnel lan lañ koy tuddee encore une fois daañ ci ci dellu soit ah, ci ci 48 yi ñu jël Moussa Moussa moom moo nekk ci buntu assemblée nationale mu euh, ambiance bi nga xam moo fa am jamono ji parce que sànq dafa ne ak tekk tekkaar lañ fa nemmeeku ñàkkul ne jamono ji am na changement ci am euh, Moussa ambiance bi foofu ndax am na euh, Ba li ma leen mën a wax rek mooy rek politique bi ñu nekk woon ci assemblée assemblée nationale moo moo fi nekk bu dafa gën a yokk parce que ni ma leen ko waxee rek ñoom euh, ñii di takk der dañoo jël seen matuwaay d'ailleurs sax dañuy sillonné ci pour mën a contrecarrer peut-être wala boo ñiy tuddee ay intrus yi nga xamante mën nañ jege au moins assemblée pour causer quelque chose de mal wala boo qui pourrait empêcher la situation mais il faut se retenir aussi que euh, euh, comme ni ko yenn autorités yi mooy les membres ñi nga xam ñoo fare ci ku jegi que ñoom aussi dañuy apporter leur soutien à la population donc ñoom am na ñoo xamante ni wuyu si nañu d' ailleurs je suis avec euh, Moustapha Guirassi euh, député euh, wala boog ancien ancienne député Mariam Soda Ndiaye ak ki nga xamante ni moo di a Bousso doy d' ailleurs dama leen di bàyyi rek ñu ñu interpeller leen situation Mariam Soda bonjour Euh, bonjour. Donc, ñu leen di nuyu sommes à Walfadri et on commence aussi par vous, par, par, euh, pour, pour, pour commencer par dal na si seen kaw mooy euh, seen signal télé bi ngeen xamante ne daal nañ ko coupé pour wane ni Sénégal mi ngi nekk di dund ay moment yu metti metti jëm si démocratie ay moment de recul démocratique parce que loo nga xamante ne musuñu ko dund bi Sénégal nekkee Sénégal ba tey mooy ay élection présidentielle yu ñu reporté kenn xamul dañ ko